jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne euh, ñu ñëw fii nag ci Parcelles Assainies seet si fi mbër moo xamante ni champion la woon ci làmb euh, muy jëf jël kenn du ko présenté Sénégal euh, kenn du ko présenté ak lu làmb depuis mu jógee États-Unis ba léegi ñu bari gisaguñ ko mu def benn sortie moo waral wasaare làmb déplacé wu ñëw tey seet si ko ngir fas yéene waxtaan ak moom jëf maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax Baye Fall. yeah am um, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokk taalibe yi mbokk jullit yi maa ngi ziar di wormaal ñëpp di jox ñëpp seen yéegwaay di leen ñaanal jàmm tawfeex sutura xewal ba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool saw di ñaan màggalu ren gi yàlla nañ ko màggal si jàmm ak salaam ba Cheikhul Xaadim waaw gannaaw loolu damay jégalu mbokk taalibe yëpp. di ñaanal ku tedd ki yal na ko suñ boroom yàggal suñu kanam te yokku taxawaayam sama ndey yu baax yi nekk ci kër gi tamit yal leen suñ boroom sàmm teral leen bar Cheikhul bon Amérique def naa fa deux ans et demi yeah. deux euh, ñu ne jëf jël ñëw na ci màggal gi bettul ñenn ku koo ne jëf jël ñëw na màggal si rek bettu la euh, màggal gi euh, xam naa ne bokk na ci li lay itteel waaw man moom pour dire vrai màggal moom fi indi quoi. mooy màggal si mooy delluwaat incha allahu rabbi tey sama jénn li ma ñaanoon Serigne Touba ba may dugalaat Sénégal yàlla na tombeek sa bis bi comme defal na ma ko nag Serigne bi moom desee la tuma dara daal. Mm. Mm-hmm. Euh, jëf jël ci taalibe ga jëf jël ci dal ga jëf jël ci teey ga ci yaru gi euh, ci mbaax geek tabe gi euh, depuis li nga nekk États-Unis ba tey jëf ñu ngi jot ay information ndimbal yoo xamante ni yaa ngi koy jëlee fële di ko def ci réew mi te xam naa ni jàppoo ni sax xam nañ ko loolu lan la. waa xam nga ñun dañuy ay taalibe Serigne Saliou jóge fii nii. suñu bàyyi jox ñu sëriñ Saliou ñu màggee si keppaaru Serigne Saliou so keppaaru sëriñ Saliou nag boo fa màggee maanaam booy def lu nit xam rek defe naa loolu defatoo li ngay wax nii sax man jaaxal na ma quoi fan nga ko jëlee. parce ku ko def ku nekk euh, nit ki euh, di nga leen defal lu baax. jëf ba dootuñ am sago ñu koy wax te nopp moom mag borom euh, daanaka daanaka Sénégal ñu bari majeure partie bi euh, des fois li ñuy yàqamti mooy diw def na njombe wala def na lii ñu mën ko fësal mais lu baax dafa bokk ci loo xamante ne dañ ko war a sëfal fësal te jëf da ngay def lu baax te buggoo kenn ku ko wax da ngay jëf lu baax te buggoo kenn ku te mbo mbokk yi dañ ne nopp moom ak borom euh, information boobu jot nañ ko ci nit ñi te xam naa ne loolu mun nga ñu ci baaxe as rek loolu lan la waaw moom laa lay wax quoi ñun ay ay taalibe Serigne Saliou lañ euh, gannaaw bi ñu doonee ay taalibe sëriñ saaliw sëriñ bi daf ñoo yar diggal ñu ne ñuy dimbalante kon yàlla saa borom moom moom yëfam te kum ko joxut doo ko ŋàññe te kum ko joxit nga sante soo kon noonu la ñuy doxee rek képp ku ma joxut bul ma ŋàññe ku ma jox ku ne santal yàlla te xam ni du man suñu boroom la quoi mais nag. amin li tax munu ma see wax mooy foogeewu moon ni sax nit for na si wéewu bëy ba war ma see laaj wax dëgg fa yàlla foogeewu ma koon sax maa ngi def nag waaye defuma ngir kenn wax si wala kenn discuter si waaw maa ngi def moom wax dëgg fa yàlla li ma yàlla dimbaleeku si néew maa ngi koy jéem a bokk ak jaam ñi barki Serigne saaliw loolu moom su ma ko waxul sax xam ngeen ni loolu moom am na parce que am na ñoo xamante ni samay nit yi démb bëgguma lenn ñu war ko yaakaar si man te duñ ko am ba tax na duma leen may sax su dee am nañ benn contact bi duma leen may sax ñu may laaj dara mhm. lépp lu ma xamante si nii ni ba ma tolloo fii soxla naa ko te mënuma ko nan a laaj doomu aadama su ma ko yoree dama leen koy jox su ma ko yoru tamit dama leen koy yéenee so loolu laa ñaan sëriñ bi daal mu dimbali ma si jëf euh, bi nga nekkee États-Unis ba tey euh, information làmb yaa ngi ko doon gis euh, lan moo la ci gën a neex ak lan moo la ci gën a metti bi ngay dem ni nga bàyyee làmb ak bi nga ñëwee ni nga ko fekkee. waaw Amine man xam nga damay wax ni li nga xamante si nii moom ma sàmmal suma tranga so ak nu munti demee loolu ak lu ma munti am loolu duma ko fàtte mukk te it duma ko bàyyi mu des ginnaaw. tey maa ngi ñaan doon maanaam homme d'affaires bi gën a mag si làmb mm-hmm. parce que li ma am yëpp nag làmb moo ma ko may bu dee waxtaan wax dëgg ca la saw kon bu fekkente ni nekk naa Amérique làmb yóbbu ma Amérique mm-hmm. ma dem Amérique rek ni bàyyi naa làmb kon man goréew ma mm-hmm. maa ngi doon suivre làmb te maa ngi doon wax si làmb saw su ngeen duggee am na ay mbir yu baree bari yu ma wax si wàllu làmb association des lutteurs wax ci CNG whatever mais bref loolu lépp buñ ko tëjee mooy maanaam euh, suñu papa Alioune Sarr suñu papa la suñu waajur la parce que bu maasee wute ku tedd ki tamit soranteewuñu kon amin munoo jiite mbir loo xamante ni nit juddu na si ba formé sax moom société boppam ba société boobu war a raw lamb yow nga ni chaque jour yow yaa si des lenn munta des Serigne Fallou lan doon wax si suñuy bët yu gumba nee nañ dem na Serigne Saliou lan doon wax si suñuy bët yu gumba nee nañ dem na yow nga ni doo masa bàyyi lii nii kër sax day dem ba mu yàgg bàyyi loxoom rocceeku si kër gi te mu ngi dund doomam yore ko sow kon yow mënoo juddule ay doom si si si réew mi ñu dem ba am expérience bu ëpp bi nga am nga ni ñu xamuñu dara soow man loolu soxor laa ko jàppee dañ koy ñaan li laay war rasooli mu dem bàyyi ñoog suñu làmb parce que man moom du ma mas a bàyyi làmb tout la vie tant que maa ngi dund du bàyyi làmb waaye di njort nañ ni Jëf Jël dina doon promoteur boo xamante ni day duggaat ci biir làmb waaye Jëf Jël moom jàpp nañ ni xanaa bëre bi moom teg na ko ci suuf waaw ma man nag dama bokkut ak ñi nga xamante ni dañuy wann seen kàddu man làmb du ko mas a bàyyi làmb duma ko mas a bàyyi wax naa ko waxati ko su ma yàlla mayoon chance mooy bërewaat damay bërewaat su ma yàlla mayu chance ma bërewaat fa yéene naa doon loo xamante nii day jariñ làmb du question que ni promoteur rek mooy jariñ làmb mais sama nawle yi nga xam ne ak sama yi nga xamante nii yàlla dogal na ni ñoom tax naa ñu dugg si làmb ñii man moom ñoo débuté doon làmb mën nañoo dimbalante si kaaw leneen lu dul làmb mais làmba ko sos moo tax ma leen di wax ni leen du ma bàyyi làmb man moom wax dëgg fa yàlla bokk ma ñi nga xamante ni maam ndombal tànk bu ndaw rek dañuy ŋaañi làmb bu ñu jaaxlewaatee ñëwaat si làmb bëgg a tagg làmb naaw man làmb ma defar mm. te tey damay wax ni képp ku jariñu si làmb na ko sante dongo daara mm. parce que dongo daara fo bu ne lay fo di nëbbatu sëriñam sëf làmb ak gardombe mm. kon làmb euh, dongo daara ko moom te man dongo daara laa waaw man sama lépp dongo daara la fi laa jóge dem janatu ma waa jóge janatu waa dem jurul duggan jurul dem xel kom après si laa ñibbisee xaw ma loolu daara waaw moo tax saw man làmb duma ko mas a bàyyi daal. am solo mais jëf euh, sa relation ak mbër yi parce que ku xamoon jëf jël ba muy nekk fii relation bu rafet la amoon ak mbëru làmb moo xam euh, ñi nga bokkal écrit ak ñi nga bokkul woon écrit euh, relation boobu mu ngi continuer ba tey. yee mu ngi continuer ba léegi parce man dama leen waxoon ni leen. làmb aw ma si adversaire am di jàmm laa si wër so ba tax na am naa sam benn mbokk sax boo xamante nii fan yi dafa wàññeekoon ñu koy Jules de Junior maa ngi koy masawu te di ko ñaanal suñ borom xare ko àjjana te seddal suuf si koom mais ndeysaan euh, lu jiitu ak dëddoom avant muy dem daan nan waxtaan man ak moom gannaaw dëddoom yenn saa yi dinaa koy janeer ñuy waxtaan man ak moom mais li may wax lenn kese la daf may wax naan ma si yow laa gisee koo xam ne li mu wax daf ko gëm ma ne ko si lan mu ne ma maa ngi soog a gëm ni làmb amut adversaire am di jàmm lay tey jii bi yàlla suñu borom defee ma tëdd tawat laa xam ne yow gëm nga 100 pour cent ni làmb amut adversaire am di jàmm la te man bépp mbër buy takk ngemb bu ñëw Amérique rek xam nga ndax jëf gëm na adversaire wala gëmut adversaire man am di jàmm laa gëm am na ñu bari ñoo xamante ni yàlla dogal na ni seqalante nañ ay teraanga biñ fekkantee foofu. Mm. loolu nag ñi mu jaaxal mooy xëy na ñi la xamut. mais ñi la xam euh, bien avant bi nga bi bi ngay bëre mbapat ba ni ngay duggee ci arène xam nañ ni lépp loo loo yor rek doomu aadama yi ñoo ko bàyyi sa loxo loolu moom ñëpp xam nañ ko ñi nga xamante ni ñoo dëkk ak yow xam naa ñi dëkkut ak yow xëy na ñoo dul loolu ci yow mais Jules Baldé bi ñu demee jëli ko ndeysaan wax na ci yow benn wax boo xamante ne wax ju am solo la mu ne jëf jël rek bokk na ci mbër yi nga xamante ni moom laa ëpp lu may dégganteel mu ngi ci ngi ciy jàppul kémtulaay kàttanam bi nga yëgee dëddoom ban fan la la fekk ak nan nga ko dundee. Amin man Jules Balde Junior moom jour bi muy dëddu sax liggéey ji ma parce que ki ma ko informé mi ngi ma ko informé bi ma jugee bay sangu bay bëgg a liggéey hmm. si la ma woo ni ma waa mais mbër naka mu ma ne ko sant Serigne Touba mun ma yee déggante nga ak sa man ko kan mun ma Jules Balde ma ne ko non ma xool déggante nañ yaa trois jours ou quatre jours si ginnaaw mun ma woy mais doo woo man quoi maa ngi nii di xëy nii quoi mais xam naa instant bi comme day teel si man nii baal su naajee su ma jëlee pause naa ko mun ma noo woo ko léegi rek après avant ma koy woo rek ma gis ñu tiitare ko quoi si net bi affaire bi nag jëlee ma kaw jour boobu liggéey jiw ma mais Jules Baldé Junior dafa doonoon kenn koo xamante nii Serigne Fallou moo ñu boolee nday bi ma wàccee dimanche si guddi laa fi ñëw lundi matin ten laa dem seen kër. ànduma ku yàlla bind dama jël fii taxi dem ba gàlleem gisanteeg yaayam gisanteeg famille bi dëppaat maa ngi fa war a delluwaat nii sax pour dem ziyaara ji xabru bi so comme amin bëggu moon lenni puukure am si wala lenni ngistal am si moo tax bi ma ñëwee rek di fajar teelu avant may teg sama tànk fenn que ñoom Jules Baldé Junior laa njëkk a dem kenn yëgu ko nag maa ngi koy soog a wax doomu aadama so nag wax bi timit du dara quoi wan gaay rek affaire yi amul solo lépp ma amin bokk ndey bokk baay moom moo war a lal lépp làmb pour man wërta xaajale yeah euh, ñu ñëw tuuti ci président Alioune Sarr euh, durant mandat bi nee nañ novembre lay jeex euh, yow promoteur yi ak mbër yi ak ñi nga xamante ne jàpp nañ ni bu Alioune Sarr wàccee ñoom la ñuy toog kan nga gis ni jàpp nga ni doy na la ci làmb war naa mën a taxawu làmb fu raw fi ko Alioune teg ok man ñëpp laa d'accord ñu yore làmb ñëpp sauf Tyson ok <laughs> xam damay wax ni mbay si sa wewu tànk Tyson làmb dafa jaaxle ancien lutteurs yi dem seeti ko mbëri démb dem seeti ko kenn déggul moi te Tyson keroog ba mu tekkee ngembam bi mu duggaatee làmb mooy bi ñuy inauguré stade bi te dañ ko fay so man bëgguma kuy dundee làmb ji kuy dundal làmb ji lay wër bëgguma kuy dundee làmb ji kuy dundal làmb ji lay wër mbooleem opérateur bu munti taxawaat laaj laaj làmb war nañ war a xool moom fan la sukkandiku ba laaj làmb parce que làmb du n'importe quel nit moo mën a yore làmb làmb dafa am ay mbir yu nekk ci biir yoo xam ni soo mbappatut munoo yore làmb soo bërewut mënoo yore làmb soo xamul làmb munoo yore làmb mais nag nit ki li muy yootu day fekk mu bëgg ko nit ki li muy yootu day fekk mu xam ko nit ki li muy yootu day fekk mu fonk ko Tyson xamut làmb bëggut làmb xamu respecté wut làmb so man làmb ji dama gëm ni opérateur économique la si man parce que tey lu ma munti am làmb moom ma ko may kon làmb rek si laa mën a wax quoi làmb si man opérateur économique la bu mag la si man si man xaw ma nag ñi koy diingat si réew mi te boo xaajoon Sénégal sans parti soow quatre-vingt-dix personnes yëpp li ñu mooy làmb facteur de développement la boo xam ne si Sénégal amul benn benn facteur de développement bu mel ni làmb ci Sénégal soow kon man dama bëgg ñu jox ko koo xam ni day jëmalewaat làmb kanam fu raw fi ko Alioune Sarr teg te Alioune def na dara si làmb mm. def na dara si làmb mais lépp loo lan la ñuy wax fii nii nee nañ DRT moo fi aw yaa a 15 ans ou 20 ans si ginnaaw est-ce nit xalaatoon na ko yee am na yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen yu war a ñëw léegi moom na dem si jàmm ak saam te suñu papa la dafa war a dallu tey kër sax mooy li ma la sa papa da ngay judd si kanamam maag si kanamam dem ba mu yàgg suñu borom ne ko lii lépp doy na lii remplacé naa ko sa doom ji lu nuy def doom ji la ñuy laaj moom it lu muy bëgg a def doomam lay laaj bu njëkk doom ji daawu ko laaj moom moo daan woo doom ji ne ko lii ak lii léegi paa bi mooy ñëw di laaj doom ji mbaa muy jëlee si doom ji information kon nañu dimbali laa war a soli mais lépp si Matar bala la ne dëkk bandum nag moo am si Sénégal quoi bu dee dañuy wax rek ne dëkk bandum affaire Fatick yooyu moom moo war a génn si lamb Alioune Sarr soo gisee lim biñ koy waxal yëpp si CNG parce que CNG bu ñu dee cinquante membre quarante membre yëpp Fatick lañ dëkk bu ñu taxawee vote kenn du gagné mm-hmm. xam naa CNG parce dama sob amut ku fay nekk taw maag yow kóllëre du Alioune du Ndiame Diop du Khalifa Sow du Maguette ñoom ñëpp laa xam yee ñoom ñëpp laa xam kon bokk na ci loo xamante ne jàpp nga ni euh, dafa am ay kumba am ndey ak kumba amul ndey ci mbiru CNG bi daal CNG dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey de passage maa ngi nuyu sama xarit Ndiame Ndiame man ak moom bi ñuy jotee combat mbës la Balla Gaye junior so combat mbës Balla Gaye junior Njàmbe mi ngi sol benn vax ñëw fekk na coow li xam nga rek entre booy ak booy diggante écurie ak parcelle mm-hmm. géejuwaay ak parcelle coow mu ngi am mu ñëw rek dal sama kaw man maa ngi jàpp ni aw soow kii est-ce que du ku bokk si kaw Balla Gaye ma tàkk si koom ma toog deux jours CNG convoqué ma maa ngi fekk foofu réunion Alioune Sarr mu ngi toog man leen actuellement fii nii mu toog lu ma ko fi defoon am ngeen droit sanctionné ma man dama ko jox identification bu wër ne man bër laa benn sol naa blouson nekk naa si écurie moom takkut batse takkut dara bu wan ni moom CNG euh, la nekk lu dul mu ñëw rek dal sama kaw man dama jàpp ne mook samay adversaire ànd xam nga noonu après ñu ni dañ ma sanctionné benn six mois après Zitor ne ma six mois méttiwut fii ak six mois mën nga fee bañ am combat même boo fi amee combat doo ko bëree zéro ko mais pour di vrai rek mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey dafa am CNG parce que loolu moom ñëpp xam nañ ko CNG moom amul lenn loo xamante ni règlement la boo xamante ni 100 pour cent ñëpp dañ si déggoo Alioune Sarr mooy jékki-jékki jénn wax lii te ko stable ñi loolu mooy am te loolu amatut fenn papa ak doom sax fi mu toll nii dañuy discuter waxtaan ba déggoo si kàddu sow kon yow loo xamante ni moomoo ko man moom moo ko ñu ñoo ni si képp yam sow balaa nga see def dara da nga war a diisoo ak nit ñi waxtaan ak nit ñi ba foo lan la waxoon du toog ak mbër yi après il a fallu mbëri fippu ministre bi wax si mu soog nangoo toog ak mbëri so man nag sam papa ji ma jur sax dafa may respecté ku tedd ki nii daf ma respecté moo tax ma mën a wax si moom mais ku tedd ki bu ma respecté wutoon soow adduna bi dañ may ŋàññi rek mais mun tax ba am si man lu gën bari sëñ ba mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci làmb parce que ku wax jëf jël euh, mënoo tudd jëf jël ba mu jeex te doo tudd làmb euh, jëf fi mu toll nii làmb lan nga gis ni moo ko war a mën a yëkkatiwaat yóbbu ko ci kaw fi mu nekkoon 2010 2011 parce que boo arriéré ci ginnaaw jëf 2006 2007 moment boobu mu ngi la fekk Sénégal fekk la ci digg làmb moment boobu ak moment bii nga gis làmb fi mu toll ni ñu bari naan làmb mu ngi dee làmb mu ngi nekk en fait làmb fi mu toll nii la yàlla xam doy na ban gis-gis nga ci am. waa xam nga damay wax ni làmb moom ah, sama coach su mu ngi nii toog daan na dégg miraaran ma koy wax quoi lu baree bari daan naa daan wax booy ni leen nañ leen dem jàngi ji métier làmb day dee fii ak cinq ans waaw man daan na entraîné ba pare ma ni coach yi soxla wuñ leen ñun bëri ñoo soxlante suñu suñu biir suñ dee waxtaan dama leen di wax neen man li tax ma woo leen ngir bëgg ñu waxtaan dama bëgg ñu jariñante mooy làmb day dee te gis nga làmb bu dee dee te fekk ñoo métier ñun ñii ñëpp ay agresseur la ñuy doon ñii nit yi prison la ñuy doon fu ñu toll ñu ngi leen di jàpp loolu moom dama ko doon wax miraaran parce que euh, mag Sall bi mu ñëwee rek sponsor yi téye seen loxo rek laa ne leen làmb day dee làmb mm-hmm. bu dul sponsor du dem làmb bu dul sponsor du dem lamb sponsor rek moom moo ko mën a yëkkati boo ko weddee xool ko si mbappat yi ngay tëgg si koñ bi boo ko amul ñoo ko marane si koñ bi nga xam ni xam nga am na tendance daanaka li nga siy bëgg a am doo ko am kon làmb bu dut sponsor du dem soo bu dee billet lañ yaakaar rek làmb du dem comprendre nga Macky bi mu ñëwee dafa fexe xool ni léegi blanchiment d'argent dafa am si dëkk bi gars yi naan si làmb ji lay aw ak du aw si làmb ji ñu fexe ba def ay campagne yoo xamante ni si sponsors yi dañu téye seen loxo ñuy xool fu ñuy fu làmb ji duggee jël suñu e, opérateur bi gën a mag jàpp ko tëj jàppaat tëj làmb fii ak 10 ans du jag billaahi fii ak 10 ans jëf-jël moo la ko làmb du jag bëre bukkeek mbaam la rek maa la xamal loolu fii ak 10 ans làmb pour mu dellu fa mu nekkoon fii ak 10 ans làmb du fa dellu. loolu lan moo ko waral ñu jiite réew mi ñoo ñoo desee bëgg làmb. wala ñoo ko desee jiite réew mi ñoo bëggul làmb. Ablaye Wade kenn ku nekk xam na ni làmb la doon dundee. daf si dugaloon loxoom cent pour cent bañ na ko ba ñaari mbër buñ musaana jote sax du xool ni président la. du xool ni ñii ay citoyen simple lañ. daf leen di woo assemblée. toog waxtaan ak ñoom benn si diggante Modou ak ballagay Gaye loolu mooy defar làmb làmb il faut que état may ko doole mu jóg ba pare ñu bàyyi marché gré à gré yi ñun ay ouvrier lañ ñu jël benn stade ni def nañ si 32 milliards right stade bi pare ñu ni dañ koy inaugurer président Sine bi jugee Sine ñëw fi ni moom moo jëloon ñetti business bëgg ko may réewu Afrique yi Sénégal tànn stade soo ma noon sambara kuuse bii laa bëgg man la dinaa ko defaral ba mu pare de livrer la ko sa kër nga ni ma ñaata man la un million moo koy doo ma jox dara dama koy defar ba mu pare ba ñëw monter la ko un million nga may fay nga ñëw facturer dix million lamb ji président Sine bi nee na bu ñu ko doon fay lépp lépp main-d'œuvre ak lépp mu ñëw defar jox ñu kale huit milliards lay doon gars yi déclaré trente deux milliards. so xanaa dañu denn lamb ji ñu am xel nekkuñu si te ba léegi musuma dégg kenn wax si di si débat. am sérieux 32 milliards lan wax lan si def c'est faux musuma gis yéen ñii di interview wax si loolu noonu te loolu dañ ko war a wax gars yi yeewu si xam ko lamb stade bi nii président Sine bi nee na bu ko doon fay global li mu ko defaree mu jox ñu caabi 8 milliards la te daf ñu ko may edd gars yi génnee budget 32 milliards kon gars yi li ñu doon kaas si Ablaye Wade ñoom ñoo ko gën a mën a def so tant que bàyyiwuñ golo di bay baabuñ di dunde Sénégal du jëm kanam am sérieux du caaxaan boo jénnee nag nga koy xam yal na yàlla jénnee képp kuy ndaw fii maa ngi ñaan suñu borom képp kuy ndaw te am jom yal na la yàlla jénnee réew mi dugal la bitim réew soo demee ba ñëw di nga xam ni réew mi liggéeyuñ dara si ay nax rek lañ ñu nekk di def bari sëñ Fallou mais des fois gis ci réew mi ñoo xamante ne dañ naa ni ay xale lañ gëm nañ seen bopp bëgg nañ réew mi euh, tukki daa dalub xel waaye du ko sa réew torox loolu moom liñ koy dégg ci réew mi bari na. amiin tukku taxu tukki taxut a am. Mm-hmm. nekk si réew mi tamit taxut am. Mm-hmm. tukki tax naa am nekk si réew mi tamit tax naa am. Mm-hmm. man ba may nekk fii nii maa ngi sant yàlla. amut ku may ñaan. mais tey ji dafa rawati. maa ngi sant yàlla bu baax a baax te li ma ko may tukki la. ñaata at laa liggéey fii nii musuma denc weer ba weer bi si cinquante mille yu mag te saa boo ma gisee ma xëy sama tëni laay sol su ma ko sumee damaa dem entraînement. même sax tëni ngay indi. yee même yenn saa yi dama doon dem lamb di seetaani sama tëni laay sol damay liggéey ba wàcc paas dem stade dem seetaani ji mais musuma denc cinquante mille bu bokk benn lien tukki moo ma ko may. comprendre nga kon tukki tax naa am toog fii tax naa ñàkk parce que suñu dirigeant yi ñu jiite fii bëgguñu ñun ñu am qu'on se la vérité nañ wax li fi nekk suñu dirigeant yi ñu jiite fii bëgguñu ñun pour ñu am dirigeant yi nekk fële dañu yéene population bi pour ñu am ñoom ñooy xañ seen bopp pour population bi am nga ñëw ñu daggale say droit ne la lii ak lii mooy say droit ñu la ko joxul sama numéro téléphone mu ngi nii woo ma xam nga si côté yëpp lan lay joxe sa assurance lépp loo xamante nii war nga ko am muy sa aide ak sa yelleef dëkk bi war la ko jox ñu yow loo war a defal dëkk bi li la dëkk bi war a defal la ñuy def la ñuy def fës nga ñëw xam ni ah dëkk bii kat comme tenir na ma xaaral ma tenir dëkk bi mais dëkk boo xam ne nattin mais mais jëf nag Sénégal émergence parce que fii bi nga ñëwee gis nga ni BRT bi jaar na seen côté kër yéen yëpp li ngeen war a jug. Euh, alhamdulilah ñu ngi liggéey ñu liggéey. waa kii xanaa dafa bëgg maan déggal maan ma ay BRT. <laughs> BRT bi diggante golf ba fii. waaw du ma si wax <laughs> BRT bi du ma si wax. waaw mais jóg moo tax ñu ñëw fii. yow xam nga ni njëkk nga dugg sama daara mais yow xam nga ni sama daara neexut a toogee di wax mm. moo tax ñu ñëw fii nii dañuy jóg moom mais la yàlla xam doy na foofu. Baay Faal la nag Baay Faal la et puis borom baax la te ndeysaan li wolof naan li li duuf ci nag bi. xajul ci cin bi déedéet xaj na ci cin bi xajandoowul ci cin bi ndax euh, jëf jël li ñu bëgg a tënk yëpp waxtaan ci xam naa ne incha allahu rabbi euh, bu ma ko nangulee dinaa ko fekk ba Touba fi muy dal parce que gis naa ni euh, am na loo xamante ni bëgg na ko wane tey dëggi-dëggi baay Fall la dëggi-dëggi taalibe la lépp loo ko wax rek ku tedd ki lay waxtaanee jëf ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax Touba moom bëgg naa ñëw sa dal incha allahu rabbi waaw amul rek. Hmm. amin maa ngi koy wax sax sama mbokku taalibe beneen manaan naan ko bàyyi leen ku jóge Europe rek ngeen deeni dafa war a changer non ñun ay taalibe Serigne Touba lañ mm-hmm. ñun ay taalibe Serigne Touba lañ rawati nag taalibe borom jàmm ak jamono borom noppeeg joxe borom xelkom jaaga boroom got borom dookaa borom njàppandal borom njurul borom ngéejaan ñun Serigne Saliou lañu yaakaar te kenn ku nekk xam na ni sëriñ saaliw kooku daa xajoo woon ñëpp. so bu fekkente ni da nga Serigne Saliou moom ngay tiitaroo mu xajoo woon ñëpp yow nga ni doo xajoo ñëpp yow amoo xel ko comprendre nga ñun dañoo doonu dara lépp nit ñi la dama koy wax saa su ne sama coach su mu ngi nii ah, borom kër gi nii sama wóllëre la sama mbokk taalibe la ñu dëkk si dëkk bu rafet du question que ni tey lii daf da nga dem ñëw rek tax ñu yombal la kër gi sama daara la ma sa doon aw ma fi sance interdit bañ naa ko ba bi may ñëw fii tàgguwuma leen loolu rek di leen di woon firnde mais damay bañ nit ñi di wax naan oh moom xanaa tey lañ ko mën a dalal fii sama daara la barki Serigne Saliou Mbacke avant may dem kër gi lépp maa ko yoroon xëy na bi ma demee nii rek la ma lu bari ump mais te sax dara ump ma parce que maa ngi jokkoo ak ñoom every time maa ngi sant ku ñuy wax mère Thiama mooy seen ndey aji rakam la Abdou Touré Cheikh Ibra di jërëjëfaat ku tedd ki bu baax a baax mm-hmm. te di ñaan suñu boroom guddal fanam lool lool lool mm-hmm. maa ngi ñaan suñu borom guddal fanam lool moom ku tedd ki mm-hmm. maa ngi ñaan suñu borom guddal fanam lool te yokk ay maqaamaam maa ngi ñaan sama ñeenti ndey yi nekk si kër gi yal na leen suñu boroom defal tawféex ak aaja ju fajo so damay wax ni nag peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya te tey jii bu fekkente ni damay wax ni duma si dara sama kot su toog ma toog ma wax ba mu ba mu jeex te moom sànniwu si ay kàddoom kon la may wax man gëwuma ko te damay bëgg nit ki buy wax hundred pour cent li muy wax mu gëm ko man Baay Faal bi doonuma dara yàgg naa leen ko wax saa yéen damay dem waaye ak yéen laay gën a dem sans yéen damay dem waaye ak yéen moom laay gën a dem te gën a dem laa bëgg comprendre nga euh, di leen jërë jëfalaat yéen ñii parce tey su leen neexoon ngeen ni jëf bi mu ñëwee waroon nañ ko gis waroon nañu woo naw fi affaire bi toll ak dëkk bi fi mu toll moo taxoon bëgguma na a jël kenn démb rek galaay walla alxasim gisante nañ mais lii laa ko mais nag defoo si dëkk bi ak ñàkkoo def si dëkk bi loo xam ni waroo ñëw di daw nii man ko dawuma kenn mais it bëgguma sonal kenn parce que man Baay Faal laa bëgguma sonal ku yàlla bind maa ngi ñaanal daal képp koo xamante nii yaa ngi si Sénégal te di ndaw yal na la suñ borom defal li nga bëgg yal na nga am xéwal yal na nga am tawféex ñi la umpule ba def la noonu yal na leen suñ borom dindi si kumpa googu noonu bañ jël si waat xam yaay kan ñu soppante bokk ndey bokk baay bu dee moom bëgg na see rotal ay kàddu ngeen may ko ay kàddu. su euh, jot nga dégg li nga xamante ni moom la jëf wax euh, ban ban message nga ci dool. Euh, auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Euh, di màggal ñëpp di sargal ñëpp di ñaan yàlla bis bi nga xam ne si lañ jëm muy màggalu tuubaa gi di màggal bisu sëñ Touba bu mag boobu ñu dem seeg jàmm te lépp loo xam nit moom lañ fee sàkku yàlla nañu ko yàlla defal ah jëf nag moom wax si moom day xaw a jafe waaye wax si moom it lu neex la euh, ndax day jàmbaar joo xam ne liñ naan jàmbaaru fàq tëdd la te suñ ne jàmbaaru fàq tëdd euh, jëf moom daanaka kenn mënul waxandoog moom ndax euh, macha allah gis ngeen lim fi wax jëm si actualité weesuwul BRT bi weesuwul làmb weesuwul famille ak weesuwul li nga xam ne mooy xaritam euh, te déglu naa li mu wax lépp ak yéen yi nga xam ne tamit ak yéen yow site bi yàlla leen yàlla defal tawféex euh, kon daal moom li mu wax la rek moom di ko gën a ñaanal ndax li mu doon wax démb ak bërki démb man mii di coach dama daan pare sax mu dàq ma na ma wax ji nga ñuy wax yéen moomu leen ko ñun mbër yi ñoo ko moom euh, Cheikh Ibra ma ne ko Mbàkke mu ne ma juróomi at ma ne ko ah mu ma làmb dina dee ma ne ko kon ñun ñu fiy def mu ne ma takkal li ma la wax ndax toll nañ foo xam ne si làmb ñi nga xam ne ñoo war a dundal làmb ñooy dundee làmb te ñi nga xam ne ñoo war a jàppale mbër yi ñi ngi xalab mbër yi di indi ay incarnation yoo xam ne ay blanchissement naan dañuy jël xaalis ci ko def fii ak fii ak fii ak fii loolu xam nga tànk mi ngi dugg si biir làmb te làmb day day day mbir moo xam ni daanaka yëfu xale la ndax xale yi fu dëkk bi toll fii mbir yi toll fu mu nekk nii amuñu benn satisfaction boo xam ne war nañ ko mën a am sax seen liggéey yooyu donc sooy xool licenciés yi sont des millier de personnes waa li ñuy ñaan rek ki nga xam ni moo fi nekk waaw fekk ne am na yërmande si xale yi na gestuwaat xale yi fekk ne amul yërmande si xale yi yàlla na ko fi yàlla jëlee rek indi koo xam ni day am yërmande si xale yi man daal loolu doon suma kàddu moom it ñu koy ñaanal teraangam yokk ndax am na yu bari yoo xam ne it maa ngi koy dégg ay jëf yu baax yoo xam ni du toog di ko lim ndax moom lépp loo xam ne def na ko du bëgg ku si jaaraat euh, ndax def na ay allusion sax sànq jëm si ay doomu aadama waaye dëgg dëgg dëggam moom si doomu aadama yi dépassé na entendement waaw man mii Cheikh Ibra xam naa si dara kon di ko ñaanal lii mbëbëtam yàlla defal ko ko ndax jàmbaar la te xam na ni fonk na ndey musu leen dëgg mu tudd turu baayam turu baayam ku ñëwul fii laajte ko du xam nan la tudd ku tedd ki rek te sëñ si boppam daan na laaj nit ku musaan ñëw si moom dina ko laaj ana say waajur soo ko ne sama baay mi ngi dund muy la demal ba làq ngërëmam waaw ko loolu la sëñ doon def te moom mi euh, di sàkku ngërëm te ngërëm nag da koy làmbatu fu ne rek fépp la koy làmbatu ndax ngërëm a ngi si liggéey ngërëm a ngi si waajur ngërëm a ngi si lépp te soo amee ngërëmalu waajur moom am nga lépp te man mii seere la te xam naa ne ku am ngërëmalu waajuram la daal waa di ko ñaanal. écurie écurie bi nga xamante ni euh, bàyyi na ko fi muy fekkee ma ci boole écurie bi fi mu toll nii fu ñu toll. waa fu mu toll nii ñu ngi si continuité. Mm. Euh, te it ñun ñu respecté li nga xam ni mooy mooy mooy consignes ñi nga xam ni moom la nguur gi joxe. Mm. Euh, dajaloo beeg yooyu dañ ko tere. waa donc ñun ñu ngi si loolu. waaye n'empêche que xale yaa ngi nekk seen ruq di entraîner euh, te de passage sax ma rappeler leen que bi mu demee première chose à faire bi mu amee xaalis man mii la yónnee xaalis ne ma séddale ko bu kenn ñàkk séddale naa ko ba si gardien yi nga xam ne dafa dañ nekk si lycée bi sax jox naa leen xewal xale yi nag euh, laata mbas mi amoon nañ juróom-benn combat yàlla dogal ñu gañe ñeent yi euh, ñaari ñu ñàkk ko ndax ñu fa nekk ay jàmbaar lañu ku mel ni Pambal mi nga xam ni bi ma fi jógee. moom la fa bàyyi waaw jàmbaar la met mi ngi uuf xale yi waaw ñun daal ñu ngi si continuer sa daal ñu ngi si continuer que waaw jusqu'à preuve du contraire daal di ko ñaanit moom it mu gën a jàppale écurie bi rek waaw loolu daal mooy kàddu yi. am na solo mhm, kilifa gi. Mhm. jëf euh, ñu lay jaajëfal bu baax dégg nga li nga xamante ne moom la kot sa mujjee wax euh, lan ma ko ci dolli. waaw moom loolu mu wax. waaw wax na dëgg quoi man yàlla dogal na bi ma demee première. semaine bi ma njëkk liggéey xaw ma sax nu mu toll dama dem rek jox ko sam benn jëwriñ ni ko envoyé ma ko ku tedd ki waxal ku tedd ki na ma joxal lii écrit bi na jël li li si des na jox sama ñoom yaay lii lii saw moom wax na ma ni mu ko seddalee woon jox na mbër yi jox na gardien sax écrit yi yàlla seera na ni defuma ko woon sax ngir kenn wax ko parce que def naa boobaak léegi yàgg na mais man loolu mooy suma mébét man bëgguma lépp lu may am mu yam si man kese damay ñaan Sëriñ Tuubaa mi nga xam ni moom mooy sama jëwriñ si yoonu suñu borom parce que damay wax ni bu béy réeree kay sàmmay fay bu béy ruuree kay sàmmay fay ñun si biir sàmmuk Sëriñ Tuubaa lañ nekk ñun sëriñ bi la ñuy jox suñu lépp dama koy wax ni ko lu ma nar a dénk te naruma ko bokk ak jaam ñi yàlla bu ma ko xalaata am ba di ko gis ba di ko am wallaay ñaan quoi lu mu ma nar a dénk te naru ma ko bokk ak jàmm yàlla bu ma ko xalaat ba bëgg a gis ba di ko am loolu laay ñaan quoi di ñaanalaat mbër yi nekk si parcelle gi yëpp yàlla ah, mbër yëpp sax laa ñaanal bépp kuy takk ngemb rek te am maanaam xel ak xalaatu dimbali parce que làmb bu doon say mbokk rek nga géey mm-hmm. làmb dama daan wax sama rakk yi bu ma daan bëre ji ay nit ñëw toog fii cinq heures du matin six heures du matin boo yi nelaw ba deux heures man leen pourtant day tool bi bu bu bu ñoree mm. yéenay njëkk a witt mm. bu ñoree yéenay njëkk a witt xaw ma ndax loolu ñoom ba ma leen koy xalaatoon na ñoom déet waaye xam nañ ni tey ñu ngi witti de jàmbur yaa ngi des mm. kon bu doon làmb say mbokk rek mooy tax di nga géey si làmb moo tax ñëpp laay ñaanal képp koo xamante nii daal yaa ngi si làmb dëkk Parcelles Guédiawaye Pikine ginnaaw raay vareeva fu écrit nekk maa ngi ñaan lépp li seen mébét yàlla na leen ko yàlla may te li lii coach wax rek ki nekk fii bu gënee si làmb yàlla na ko fi yàlla saxal bu gënu si làmb yàlla na ko fi yàlla jëlee